di yëkkati kàddu yi ci tur ak ci ndigalul alxalifatil aam li tariqatina almuridiya alseyx muhammadil muntaqa xafidahu llahu alqadiru almuqtadir wa ayadahu wa nasar wa razaqahu wa satar wa rahima salafahu wa gafar lahum wa li man anaaba ila rabbihi wa staxfar di di kàddu mbokki jullit yi mbokki taalibe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 bind nu andi fii te mooy jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun kon nan gën a sax ci def ay ndigalam ak moytu ay tereem loolu kat la sëriñ Tuuba bëgg ci nun te moom lanu sant ijmaalan wa tafsila ndax mooy sababu ak mucc ëllëg te moom lanu bëggal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 fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ilal ada wa taabi nan maa sa xam ne àddina dëkkuwaay jaarukaay rekk la di tool yu nuy liggéeye rekk kon du kërug fo du kërug noppalu nan teg ci sun kanam waxe sunu boroom ji te mooy wa qul yaamalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa saturadduuna ila aalimi alxaybi walchahaadati fa bi bima kuntum taamaluun gannaaw bu yàlla maye doomu aadama xam-xamu xàmmee jëf-jëf ju baax ak ju ak kàttanu tànn li ko ci neex mu def dana yonente bi neel nit ñi def leen lu leen soob lu ci waaye tànn def ko moo xam waaye ak lu man di xew yàllaa ngi gis seeni jëf daa iman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 fedle na ko faneen sax wax ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara ku def dara lu toll ne la la gën tuut ci li tuut ci lu baax dana ko gis ku def lu tolloon ci saan bi itam dana ko gis te looloo taxoon sëriñ bi doon wax ne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 yal na nu yàlla boole baal innahu taala mawlaaya wa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa huwa qaribun wa samihun wa basir wa ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir déenati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh